relation dina def cinq ans six ans. waaw te yàlla programme wu ci sëy nañ nit ñi bàyyi xel ni sëy yàlla nga koy takkee ca aras. waaye nañ ci sabab lu yëpp. xam nga sabab bi moom ci la waaw sabab lu mooy mooy sabab mooy doo ko takk te début relation ba. waaw waaw waaw am na jigéen ñoo xam ni si góor gi leen ni doxaane leen lambal. waaw waaw allo ndax nag kenn demu fa. Ah, dinañ ñëw allo allo dem na 88 ñoo xam ne dañuy sol dàll. faal doxaan jigéen muy bañ nga koy doxaan ñetti weer muy bañ. te la ngay insister yëpp xam nga ni takk ko tax koo. déedéet déedéet déedéet. ndax xam am nga sa mami fee ca am na ñoo xam ni seen parmeres moom ngay takk am na ñoo xam ni seen parmeres. doxaan naa kinne da cee bokk. waaw waaw rek tiitaroo ko. am na ñoo xam ne góor ñoo xam ni <laughs> seen parmarès. waaja noonu lay def ah. ak mel ni maam Sidi. maam Sidi am am feemu rek ku yëngu. ci koñ bi. waaw màgg tuuti rek. nga ni ay ca waaw. CV bi bokk ci doxaan naa diw. waaw na na turu nee na waaw rek wala wala wala amul problème. wala amul problème ah, jeex na. Euh, Mouhamed est-ce que xam nga ni doxaan gu yàgg day lambal jigéen. dëgg la. ndax bu ñu la ràññee yaa faal njaga ba ñëpp xam ko. waaw góor dootul ñëwati parce que dañ naan diw la bëgg. dëgg la te mën na am nag faal moom du la tag la beneen bi mooy gis nga kilifa dina lambal sax euh, doomam tax te te du ko yëg. dëgg la. Mm-hmm. xanaa xamoo ni Mouhamed dina bëgg xale bu jigéen bi. Mhm. doyloo xale bu jigéen bi. Mhm. waaye waajuru Mouhamed. Mhm. dañ naan ko kii baax na waaye amul kilifa te sëy kilifa ci la bokk. dëgg la xanaa xamoo ni tàmbalib sëy. falaa bu ay kilifa bokk ci. dëgg la bu ñu ba ci biir nag. loo ko góor ki bañ a faale goro yi wala ku jigéen ki bañ a faale goro yi mais tàmbalib sëy falaa bëdd ñu sooraale ci ndax am na kilifa wala amuñu kilifa moo tax am na ñoo xam ne ñoo lambal seen doom te yëguñu ko moo tax yar éducation valeur dafa baax dëgg la ci jigéen ci góor dëgg la am na koo xam ne ku góor koo xam ne comportement ba mu daan ñëwee di seet ci kër gi wallahi moo tax bu ko ñaanee mhm. kenn du ko may dëgg la après lu muy wax mhm. mooy damaa dem yi te kenn mayu ma mhm. xëy na ci sama xeet la nangam la wala dañ maa jëndeeg diw wala dañ ma fekk na nga daan ñëwee merci na nga daan ñëwee ci kër ga kenn du a may jabar ah. respecté woo kenn yow goo commencé kar bidoo waaw mooma goo commencé saaga mooma goo commencé zëmbali ci biir kër gi ku la may jabar da lay sonal sonal doomam am na jigéen ñu mu neex lii ma lay wax nii ku tudd Aroona Jaw moom laa doon àndal chaque jour muy way benn bés la ñu romb ñaar ñuy xeex caaro yi xam nga diggante caaro yi ak Pikine am na benn baar bu ne foofu waaw ci ruq bi. nu waa ji saf baar la. saf baar saf baar mais ndaw si waajaa ngi koy dóor. ci ci ci bi. bo xam nga saret mooy fi waa ji toog di dawal saret bi. fekk boobu gaare na une heure matin. Mhm. ñu am fu ñu jugee. mais waa ji day dóor ndaw si ba koy suruxal foofu. ci baar bi ci saf baar bi. man ak aaruna ñu di àtte ndaw si ñu génne leen ci. ma ne roon yaa quelque chose lu tax ndaw si ñu koy dóor dóor yi ñemewu la yooxo ci kaw di onk am na lu mu def waa te itam mantu bu jigéen teelee jël engagement wu ñu koy dóor muy nangu saa yi duggee ci sëy bi dootul am daraja ñaare bi te te damay faral di wax ne na jigéen ñi moytu. gis nga gor yi piir gor yi piir. wallahi ñoo ngi si biir néegi di histoire te kenn yëgu ko kenn ah, mais mais olof mooy faral di wax ni doom bu fekkee xuloo ñaari wayjur gàllaajam toj na wallaay dëgg la kenn dootu ko ñaanal mu nangu wala xoolal réew mi doom yëpp daanaka wala ñi ci ëpp chaque jour ñu ngi dégg xuloo papa ak yaay xuloo papa parce que lan moo tax gis nga wayjur pour man bu demee doomam demee ba xàmmee warati naa jom ba xuloo soxnaam wala borom këram ba doom di ci teg nopp ak loo mën a wax mën a wax njaga lal distance bi dafa gudd bànneex bi dafa gàtt kon yàllaa ngi sédd ni waxtaan war naa dox ci seen diggante yéen ñaar xaw ma ndax dégg nga ma gis nga góor daal bu tàmmee ñaari baat yu mu wax xam nga mbedd mbedd waaw am na moomu tubaab bu muy nduróol dama koy bañ a wax mhm. ñaari baat mhm. yu mu wax ci jabaram mhm. tudd turu mbedd boobu ah xam nga baat tubaab ba muy nduróol mbedd ah. waaw dégg nga. Ah? waaw waaw waaw heure bu xuloo bu tàng bu xol bi tàngee. waaw baatu tubaab bi xaw a nduróog mbedd. waaw waaw mu tuddal ko jabaram ay doomam di ko yëg. waaw wallaahi yaa ngi yaa ngi wax musiba ci sa biir kër. waaw c'est-à-dire waaw waaw ah, demal euh, seetaankat yi xam nañ ko mantu dee daa bëgg kuy laal baaraam te du ma ko def <laughs> maa lànk man yaa ngi dégg yaa ngi dégg léegi nag li si des moom mooy dafa say doom say doom yow say doom. Mhm. am na lu muy demee sax du ñu nawloo sa papa. dëgg la seen papa. seen papa waaw. ndax dañoo tàmm dégg baat boobu mu di ko wax seen i yaay. ndeysaan jigéen ñi nañu xam seen valeur. Mhm. xanaa xamuñu ni. ñu jël ko mujj gi laata ñuy jeexal allo. waaye naa def. Eh, maa ngi sant. dem na ayca Fall rapidement. Eh, ñu eh, jigéen. Mm. or la. Mhm. ndeysaan sëru jigéen or la. wallaay. ngir yàlla bu wallaay ay jamaa valeur. sëru jigéen or bu mu ko jëndee bu mu ko jëndee meebu meebu kayit yi waruñoo sàgg sëru jigéen jamaa la bu mu ko bu mu ko jëndee bu mu ko jëndee meebu kayit yi bu ko jëndee bu ko jëndee eh, eh, dara bu ko dara jar ci àdduna man dara jaru ko kër jaru ko oto jaru ko dara jarul valeur u jigéen. démb démb sëñ Amara te boo ko ñàkkee c'est fini. waaye ñax la boo ko ñàkkee c'est fini. dafa wax démb ni jamaa amul valeur nit a ko valoriser. dañ lay laso. waaw xam nga la sëñ Ahmada nee na jamaa amul valeur nit a ko valoriser. Hmm. sëñ Ahmada nee na jamaa fa mu ne ak na mu soree. Ah. nee na amul valeur waaye nit moo ko valoriser wutal ko dëkkuwaay bu daa ko palais président de la république wutal ko ay lésère wutal ko ay garde du corps nee na nit moo valoriser jamaa noonu nee na bu jamaa melee noonu ba mën ko garder noonu waaw kon jigéen naka la biiram war a mel moom mi formé doomu aadama. da ngay xool kër lu mu rafet rafet milliards yoo ci mën ti def soo ci dëkkee te amul jigéen. xool kër ga nu muy nem. moo koy rew waaw di yàqu. ma ni boo yoree benn jabar képp rek bu tukkee nga am ngan nga waye di. waaw. Hmm. valeur lañu. buy waye ngay waye leen seen valeur bi ngeen yor yéen si boppam ay valeur ngeen bu leen ko kenn wàcceel. bu leen ko dara jaral ñu jël kii allo. dëkk góor bu leen ko dara jaral. allo. aleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay bi. loolu man may. yëkkatil kàddu gi bu dee jàmm ngay wax kàddu gi maa ngi lay ziar bu bu baax ku tedd ki. naw dëgg yàlla moom noo nga daara la waaye ku ndeysaan jërëjëf jërëjëf. ndeysaan ndeysaan. ma yitteel lool. ndeysaan ndeysaan. na baat bi jóg tuuti ñu dégg. waaw émission bi maa yitte lool lool moo waroon may woote waaye mosuma woote ci kaay. Mm-hmm. ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan. loolu moo waraloon daal ma ne xaaral ma woote ziar la. Mm-hmm. di wax ne li ngeen wax ci wàllu mbëggeel lu am solo la. mantu ndeysaan. Mm-hmm. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngoon ci wàllu mbëggeel yaakaar naa ko def lii. wax naa tax bi xam yi ba ko aw ma nit moom booy bëgg da ngay bëgg naa ko. dëgg la. ndax bés bi ngay bañ. ndeysaan nee na booy bëgg dëgg la naan ku bëgg di bañ loolu ay caaxaan la ndax ñu ku bëgg dina bañ ña am lu ñu gis yow lu tax mu bañ bëggee gi mu bëgg ko dëgg la te ku la bañ des na sa ñëw mm-hmm. mu gis lu tax mu bëgg la mm-hmm. moo waraloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne booy bëgg na nga bëgg naak ndax li ngay bañ mm-hmm. booy bañ na nga bañ naak ndax bés bi ngay bëgg dëgg la kon ku bëgg dina bañ bañ bés na ñëw mu bëgg waaye nag lépp dañ ci demee xel la ak naak waaye nag di la wax ne man daal ku la nawloo ndax ku ma gisee nga def émission wala ku ma gisee a toog si téléphone damay toog teewlu la. ndeysaan ndeysaan <laughs> kenn gënu la ndeysaan ñu ngi kontaan bu baax a baax. sopp la lool wax dëgg yàlla. walaay maa la raw. yar geeg teggin ndax xam-xam moom boo amee te àndul ak teggin nag wax dëgg yàlla moom. Mhm. la walaay ñi ma tiim laa ñemewul rek. ndeysaan <laughs> kontaan naa ñi la tiim laa ñemewul rek. walaay ñaar ñii a dendal nii dama leen ñemewul nag jaajëfal oustaz bu mercredi incha allah ayu ñaareel gi. waaw man tudde loolu ñor na ko loolu. nee naa nee naa ko sama xarit Badara Fall. <laughs> tax na léegi ma taamu ma nee Badara Fall Fall rek laa koy wax ndax Ndiaga. ndeysaan léegi Fall rek laa koy dóor Ablaye Ndiaye nee na ma Oustaz. da nga uteeg moom la da nga baax. ndeysaan Ndiaga yow da nga baax. walaay walaay ah ceeb <laughs> daal rek le. jërëjëf mais sama xarit bee Fall moom. <laughs> mooy contraire Ablaye Ndiaye nee na ma Oustaz na Ndiaga rek yéen a fi mu ne képp naa la ci miir bi la ci miiru wis ba pare dina ci diri. li ma diri daf bi daf ma yaram ne mburu bu fanaan. dana naa bu ko xamp ci wis ci wis waaw mën naa mais nag xamal la déedéet Ablaye Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax mais problème mooy message foo dugg ah. mun la génnal foofu maa def émission fii it maanaam mantu mantu <laughs> ne fii